bu ñu demee ba ay saagante war a tax assemblée nationale di pencum ndawi réew mi daje ba dàq fa ab vice président euh, ci seen groupe parlementaire ñuy laam-laame naan tax na euh, ba ñu amal ay jalgati ci constitution bi di charte ndey réew mi ci article 60 am bi wax euh, ci ana nañ la ñuy dàqe ab député ñu ne détawaay procureur de la république ñu ne ma nga cey waaj a dugal loxoom ci saaga yi suñu république bi ñu bokk ñun ñëpp lépp di riir jamono ji ba mu mel ni république bu sàgganu jot na ñu war a taxaw xoolaat suñu bopp ndeem ki ñu tifaar saaga yi moo waxal boppam ni fukki at ak benn ngi Moustapha Cissé Lo dëkkee ko saaga ñu war cee jànge ni du saaga yi mooy wax ji saaga ya siiw mooy wax ji ba dàq Moustapha Cissé Lo ko waroon na caa mën a ñàkk ñu waroon nag dàqi ki siiwal saaga yi ndelu jiin njaak tey njaak mooy njaak askan wi war a lànk ñu bañ a jël suñu assemblée nationale bi def ko anyukaay constitution bi loo lambe justice bi langa buri maanaam ay fowukaay nañu xam ne nit ñi ñoo fi bàyyi ko waaye ñetti ponk yi ma lim di ay institution ba keroog buftu bi wal fii la ñuy des te ñu war a am yeneen yitte yu dul donte ay saaga moom ndeem ci parental la rafetul ku ne xam na ni jekkul jaaduwul ci mu kalaf ak lu mën a xew rawatina ci jamono ji ñuy wax waxi récession te moo di économie maanaam koom gu rës ba nërmeelu yitte ji war a nekk feneen ci leneen lu am solo lool ñu bëgg ko fa ba naan président ne trop c'est si c'est loolu li mu wax ëpp na li ëpp bay tuuru jamono ji mooy l'hôpital yi xamatul ana nu ñuy def ak ñi mbas mi tëral ñi dee di gën di bari ñi feebar di yokk te mboolem matuwaay yañ ca tegoon ah, ci xeex ko ñu tegg yépp teg fële lii mooy dëgg dëggi wax ji ñu war a wax ak ñu war a wax itam ci milliards yu bari yi ñu jël ah, teg ko ci loxoy Abdoulaye Diouf Sarr ak Mansour Faye ndax 64 milliards plus 69 milliards élèwu CP mënu koo trouver ndax la mu am je retiens maanaam xaalis bu takku la lépp boo ko boolee téeméer ak ak ñett ci ay milliards lay toll doon nag lu war a leer donte am na ñu jàpp ne du mës a leere fii xanaa feneen te président askan wi yow la ñu fal du keneen muy seen jëmm di seen alal càmm gi yow lañ ko dénk nga boole ci wër réew mi juróom-ñaar boole ci tàbbi ci sa ñaareelu mandat war fee ba woyu rëy wu rafet ñaara ngi waroo teggi say gët ci ñoom ñu ñaanal leen yàlla wér ak gudd fan ab Abdou Diouf Abdoulaye wadd ku ci ne mat la woy jur nga wuutu leen li nga ci mën a jànge bari na lool bul nangu par parloo ak pété ci wàllu politique di la yàqal ñëpp ñi nga àndaloon ba dara dul dara ba dara dee dara defal nga leen kenn ku nekk dara te ñi ko mën a seede bari nañu ubbikul xool ñi am ay compétence ci biir réew mi te féetewuñu fenn te doon ñu maandu nga ànd ak ñoom liggéey réew mi te njariñu réew mi rek tax bala may tàggoo ma fàttali la xew Côte d'Ivoire loolu man daf maa waar Amadou Gon Coulibaly 59 la juddu 2017 la nekk premier ministre 2020 Alassane Ouattara def ay pexem ba Guillaume Soro gàddaay Gon Coulibaly war a nekk candidat ba doon président wuutu ko fa faatu yàlla na ko yàlla yërëm te yéexee ñu mu may fàttali la woykat bu mag boo waxoon ni yàlla ay ci pootum buur dangay weer ba mu fendi mu taw ca kawam wasalaam ba beneen conférence